salaamaaleykum mbokk yi ah, ñun la seen doomu ndey Male Fofana ñoo ñëwaat tey jii ñëwaat tey jii ànd ci ak Jotna TV ci seen jotaay yi nga xam ne ñu koy def ak yéen rek muy jotaayu ah, ah, waxtaan waxtaan ñu nekk ci bunt boo xam ne ñu ko tuddee kàllaame penc mi kàllaame penc mi nag li nga xam ne na ko ci def nekkul rek nekkul lenn lu dul waxtaane kàllaama yi ñu am suñu penc mi waxtaane kàllaama ngi ci boppam waaye tam waxtaanee naka naka lañ gisee kàllaama yooyu ak naka lañ leen waroon a gisee ngir rek eh, ngir mën a méngoo ak ak li nga xam ne moo xew dëgg-dëgg ñi ngi tolloon ci kàllaamay wolof ah, kàllaamay wolof ba ñëwee jot nañ ko laytaay jot nañ leen wax maas yi jox nañ jot jot nañ leen tam wax ah, li gën a eh, li gën a fés ci eh, rurale yi boo ko defee ñu ngi nekkoon ci cosaanu baati wolof cosaanu baati wolof moom buñ ci ñëwee dañuy wane naka la wolof di sosee ay baatam ak naka la wolof di soppee baat jëmale ko ci ci beneen baat ci ci loolu lañ nekkoon ci loolu lañ nekk ba léegi di di ci ni bu ko defee fii euh, bu ngeen xoolee gi gis ne jotaay bi weesu dañoo andi woon lu lu lu lu bees bu njëkk dañoo jëloon rek kàllaama gi ji kàllaama gi ji boppam di ko saytu léegi dañuy xool ñaari kàllaama bu ñu dajee lan mooy xew. ne woon nañ leen bu ñu dajee te faw ñu daje te te yenn saa yi bu fekkente ne kàllaama gii dafa soxla ab aw jumtukaay boo xam ne ci beneen kàllaama ga la ci beneen kàllaama ga la nekk te moom amu ko naka lay def naka lay def ah, li muy def mooy da koy solal yére wolof da koy solal yére wolof wolof bu amee baat bu mu soxla boo xam ne ci beneen kàllaama la nekk da koy jël waaye bu ko jëlee da koy solal yére wolof lan moo tax mu koy solal yére wolof Euh, waxuma ki nga xam ne dafa dafa jàng euh, français ba ba miin ko kooku moom mën naa wax euh, tubaab ba nga xam ne boo gëmee si say bët di ko déglu da ngay ne tubaab mooy wax ak yow kooku moom <laughs> waxuma ko ñi may waxal mooy ñi nga xam ne dañoo dañoo janoo ak ah, janoo ak kàllaama gi dégg ko te te te miinuñu tubaab nan lañ koy waxee te loolu ma leen ma leen ne ni ko wolof di defee jëmale ci tubaab tubaab bu amee baati wolof tam noonu la koy defee waaye àdduna daf euh, dem na ba nga xam ne tubaab bu demee yax dafay rafet waaye nit ku ñuul bu bu demee yax doon làkk baax tubaab damm ci yax dafay daal ñaaw waaw loolu moom loolu beneen mbir la léegi kon bu amee benn baat boo xam ne dafa jóge ci benn kàllaama ñëw euh, euh, tu gi bi koy jël am na ñaari ñaari xeet yu mu yu mën a def dama leen jox leen misaal bu baatu avion avion bu ñëwee tubaab euh, wolof amu woon avion bu ko defee li muy def mooy mën na jël baat bi solal ko yëre wolof wala bokk mu jéema sos baat bu bees ngir tuddee ko ko naka lay def bu dee sos baat bu bees bu dee sos baat bu bees day day rek xool ni ni wolof di ni kàllaama di di sosee ay ay baat dégg nga daal Euh, avion mu ne fafal naaw maanaam faf na naaw ma wala mu mel ni nga nga nga gis avion bi muy muy daw di daw ba doole di gën a yokk mu ne ko fafal naaw wala faf faf na naaw ñu ne fafal naaw loolu benn bi la maanaam nga jéem a sos loo xam ne ci ci yow ci ni ngay sosee say baat lay jóge ngir ngir mën ko tudd beneen bi mooy nga nga nga daal di jël ni ñu koy woowee ni ñu koy woowee ci kàllaama googu rek. nga daal di koy wax bu ko defee am na ñu naan avion am na ñu naan ambiyon am ambiyon bu ko defee dañ ko solal yére wolof ndaxte wolof amul v bu bu fekkee ne v amul nag ñaar moo am ñaar moo am wa ilaa nga bàyyi fa v bi ñëw ci ñëw ci ci wetu ndeyjoor bi gën a yolom nga daal di jël wa ne avion wala nga nga bàyyi ndeyjoor bi dem ci càmmoñ bi nga maanaam nga jël baat bi ko gën a jege te mu te mu gën a te mu gën a euh, dang nga daal mu nekk bë vë dafa nekk diggante wë ak bë boo defee nga ne am am bi te wolof ñetteel bi ma la waxoon newoon naa leen amul on wolof dina bakkanal ay ay euh, ay riiraale maanaam një nga waaye du bakkanal ay maas boo ne ko on on lay wax bu ko defee avion daal di nekk ambion loolu benn xeet la waaye avion dafa am tam beneen baat bu ñu koy tuddee mooy roplaan roplaan xam nga tubaab yi bañ fi nekkee euh, ñu doon gën gën a wax ay ay kii lañuy ñu woon ay euh, maanaam ay boromi ndomba tànk lañ te te boromi ndomba tànk yi lu mel ni ci l'armée bi ñaare bu ñuy wax euh, dañuy dañuy jël lu ñuy woowee kàllaama goo xam ne dafa kawe bokkul ak kàllaama gi ñëpp di wax. aéroplane ñu dégg aéroplane aéroplane mooy baat baatu technique la baat bu xareñe aéroplane bu ko defee ba suñu nit ñi déggee bu njëkk ah, yan soppeeku moo am aéroplane baatu wolof baaxuwul di di tàmbali ak maas day mel ni nga ne ah, day mel ni nga ne autopsie. ñu wolof dégg ko cest à dindi o bi ne topsi ndaxte moom baaxoowul di dégg ay maas nga dégg ñu ne armée nga dégg ñu ne armée ndégam wolof baaxoowul di di tàmbali ay maas mu daal di jël lëbi l'armée daal di jël lëbi toftale ko ci ngir mu mën a yomb yomb wax ci moom ñu ne armée mu ne l'armée nga ne autopsie mu ne topsi loolu moo xew fii bu ko defee boo ne aéroplane dañuy daal di dindi euh, maas bi ñaari maas yi aye dañ koy dindi mu des roplaan roplaan loolu kon benn mandarga ngi noonu ñaareelu mandarga bi mooy peu ak la peu ak la ñaari riiraale yoo xam ne dañ leen a toftale wolof baaxoowul di am ñaari riiraale yu ñu toftale bu ko defee moom da koy da da leen di xàjjale balaa mu naan plë danaan pëla wolof boo ne ko classe danaan la kalaas boo ne ko glace mu ne la galaas dégg nga boo ne ko trait mu ne la tere kon kon euh, roplaan daal di nekk roppalaan roppalaan wolof di ko woowee roppalaan donc loolu la bu ko defee nga mel ni buñ ne gouvernement wolof daal di ne gouvernement ndaxte vë nekku fi bu vë buñ ko dindee euh, gouverne bi da ko da ko daal di maasale daf def ko góor nama wolof amul man donc ne ne man gouvernement Euh, mën nga gis tam euh, buñ ne coffre wolof ne koppar loolu li ko indi rek nekkul lenn loolu euh, fë ak peu fë dafa dafa di baat boo xam ne dafa jafe ci ci ku ko tàmmul bu ko defee peu moo gën a yomb que fë boo gisee peu sa ñaari tuñ ngay boole fë sa tuñ ngay boole ak sa sa sa bëñ ci kaw peu gën a yomb fë bu ko defee coffre feu bi ñu daal di koy soppali def ko peu ndaxte peu moo gën a yomb ndegam wolof am na ñaar ñëpp waaye peu moo gën a yomb feu mu daal di koy jël léegi preu bi nga xam ne moo fi nekk te wolof amul ñaari riiraale yu ñuy toftale da koy xajale koppar coffre daal di nekk koppar am na yeneen baat yu bari titre titre éclaté ñu ne karaté karaté e bi danga koy dindi ndaxte wolof baaxawul du ko am la bi nekk ci ci claté nga daal de koy xaaj ndaxte wolof amul baaxawul di am ñaari riraale yu yu ànd fièvre ñu ne feebar fièvre xam nga i ak e wolof baaxawul di am ñaari ñaari riraale yu ànd ñu mel ni ple wala bleu wala tre waaye tam baaxawul di am ñaari maas yu ànd ñu mel ni ie ie anglais moom dina am ñetti maas yu yu yu topp nga mel ni nga ne boo boo waxee mi ci misaal flower ngay am a u ak e anglais am na loolu tubaab moom mën na am ñaar maas yu ñu boole wolof baaxawul di ko am moo tax boo ne ko fièvre i ak e muy ñaari maas yu ñu boole wolof da koy daal di da leen daal di eh, wa ilaa mu jël benn bi wala mu daal di leen maasale wolof bu leen di maasale da koy xëcc wolof am na xëcc anglais am na xëcc waaye tubaab amul xëcc bu defee fièvre wolof daal di ne fee iyee bi mu xëcc ko ne fee ve wolof amu ko bu defee mën na jël wë bi gën a yolom wala mu jël bë bi bi gën a dëgër kon fièvre nekk faible bre bi nga xam ne wolof euh, ñaari euh, riiraale la ñu boole wolof da koy xajale ndaxte moom baaxawul di am ñaari riiraale bu ko defee fièvre daal di nekk feebar loolu la kon yooyu ay ay ay ay yu tuuti la rek yoo xam ne dañ ko doon doon wane ci ni wolof ni kàllaama mën a jëlee beneen baat ci ci beneen kàllaama daal koy solo la ay ay ay yëre yoo yoo xam ne moom la gën gën a miin ah, mu nekkoon loo xam ne dañ ko bëggoon andi tey ngir wone lan moo sabab baat bi ñu ko jëlee ci ci feneen mu soppee waaye itam li ñu doon wax rek li ñu doon wax rek moo moo fi nekk ba léegi ni ko wolof di defee tubaab noonu la koy defee léegi nag ñu ñoo war a am suñu fulla ñun ñoo war a am suñu suñu suñu suñu fayda ba tubaab buy damm yàq mu war a warul mën a rafet te wolof buy damm yax mu mën a ñaaw ñaar yëpp wa <laughs> ñaar yëpp moom dañ koy boole mu daal di ñaawandoo rek wala mu daal rafetandoo te sax rafet ak ñaaw dafay amul taxte fii liñ fi wax mooy rek loo xam ne njëriñ li mooy njëriñ li loo xam ne mën nañ koo firndeel mu am na fu mu wekku am na lu tax mu am bu fekkee ne yow da ngay gëstu nekk boroom xam-xam-xam loolu moo la ci moo la ci moo loolu moo la ci yitteel. Ah, loolu moo nekkoon li nga xam ne dañ ko andi tey bëggoon ko waxtaanee ak ak yéen ci wàllum eh, kàllaama ni muy sosee baat li ma nekkoon ñaareelu jotaay bi nga xam ne dañ ko am ci ñaari kàllaama suñu dajee lan moom mën a xew mbir mën nag gën a fa waaye comme ni ñu ko waxee waxtaan la dañ dañuy ñëw rek tënk tuuti rek ah, leneen li moom ah, liy duuf ci nag bi xaju ci cin li ñu leen di gërëm di leen sant di leen euh, di leen jaajëfal ci teewlu bi ak déglu bi di ñaan borom bi mu may ñu sutura taw feex ak euh, ak ak kàttan ñun ñëpp ñu ñëpp ñun ñëpp ba ñu fekk ko beneen yoon asalaamaaleykum